ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ni yéen ay suivre bi di xalaat tey nag ñuy waxtaanee comme ni leen ko waxee woon pétrole ak gaz bi nga xamante ne nii ñenn ci gouvernement bi fi nekk sax bugguñ kenn ku ci wax ñenn sax suñoom dañuy faral di wax naan gaz beeg pétrole bi génnagul sax ku ci nekk di ci wax. genre discours yooyu li ñu ci jublu rek mooy nax nit ñi pour gëmloo leen ni pétrole beeg gaz bi tàkk génnagul kenn waru cee wax alors que période bi nga xam ne génnagul ci la ñuy signé contrat yeeg yooyu yëpp maanaam ci la ñuy lalee anam gi ñu ko nar a exploité pour xamal leen ni rek balaa ñuy xuus ci vidéo bi fi mu toll ni contrat yu bëri signé nañ ko et ñenn ñu bokk ci nguuru Macky Sall tàmbale ko ci moom commencé nañ ci jël seen wàllu ku ci mel ne rakam ak Moustapha Niass même bi nekk président assemblée nationale commencé nañ ci jëfandikoo pour wàll leen ni pétrole beeg bi du exploitation lañ koy lijjanti mais lañ ko war gaz bi ci bopam commencé nañ ko exploiter té lu ci ëpp Senelec commencé na ci bénéficier wu mais ba légui gouvernement bi day neub dëgg bok non manam defu ci communication bi ci wara pour nit ñi xam ko lan mo tax parce que utilisation bi Senelec di utiliser gaz bobu noonu dafa wara tax famille bu ci nek bu am réfrigérateur am télévision am machine à laver am climatiseur waxuma ventilateur mën nga fay 20000 francs manam tay fiñu ñu ni sénégalais yi facture courant waroon na wàññeeku bu baax parce que sénégalais commencé na di utiliser gaz bi nga xamanteni

Euh, à 60 km de Dakar à Gadiaga fait exploiter un puits de gaz et produit 300 000 m3, par an par mois mais par jour ici à Gadiaga en allant vers Bayar cette société est basée à Houston Nous avons acheminé acheminer gazoduc Sénélec Cap de Biche Central Cap de Biche Acheminé un gazoduc euh, groupe GTI le groupe privé la euh, courant Sénélec je sais que la sax euh, composition active actif très importante. sax ko parce que am na ñu de ñu ñu Le gaz boobu moo tax Senelec demande bi nga xam vers les années 2011 Il y avait un un un terrible souci pour approvisionner nit ñi en électricité c'est le gaz qui a réglé le problème et c'est le gaz de Gadja qui a réglé le problème donc ci rapport ITIE 2014 ak 2016 nous avons publié comme quoi le Sénégal aurait produit 40 millions de mètres cubes de gaz mais en réalité ils qui ont été entièrement affectés aux besoins de la consommation nationale Le gaz boobu nous supporter nous euh, faire face à la demande de supporter la fraude qui est sur le réseau parce que cette fraude est estimée à 20 milliards Donc, léegi délestage sax amatul panne rek Donc, donc fait un coût de production parce que le gaz est fii produire nous gëna yomb ñu importer ay ay de fuel. Euh, fay transport bi dédouané ko dugal ko saar pour raffiner parfois sax raffinage bi am ay problème on a vu euh, l'affaire euh, Trifigura, là le le carburant frelaté c'est doog ko doog brûler pour def ci électricité Le courant est dafa cher les tribunes sont en train d'être mis au gaz parce que tout toutes les tribunes conçus pour fonctionner au diesel sont conçus également pour fonctionner au gaz donc comme le premier bouffée d'air du Sénélec. donc l'or depuis bu Yag, la répercuté sur les prix parce que regarde la logique euh, économique euh, naka nga peut a le prix euh, courant qui dépendre du produit produits au moment où le baril augmente paradoxe c'est une bonne information mais il y a un problème ils ne communiquent pas parce que le gaz en fait fait alimenter Sokosim qui est un privé étranger d'alimenter alimenter euh, l'usine de production de zircon à Diogo qui est étranger c'est le reste qui va à Houston gaz Bobou, forte daf ko Sénégal Ben année 2011 le courant bi taré xam nga code pétrolier dafa consacré à l'article 54 ni bu ñu produire gaz ou wala wala wala pétrole dañuy affecté le Sénégal à sa consommation ba pare doog des loi Le ministre de l'Énergie de l'époque a gis un décret président Abdoulaye Wade def réquisition gaz pour satisfaire la consommation nationale Il a attaqué dafa décret devant la cour suprême Maintenant, Macky Sall ñëw venu l'année suivante au pouvoir mais Cour suprême rend ben arrêt arrêt numéro 20 11 avril 2013 pour débouter Sénégal et Sénélec suñu Cour suprême nous nous avons ben arrêt pour dire Je je suis basé sur l'article 54 la consommation est affectée par priorité à la satisfaction euh, de la consommation nationale mais je suis basé sur l'article 30 du code pétrolier euh, euh, le contractant est propriétaire de l'hydrocarbure extrait en tête de puits alors que ne luñ ko contesté d'autant plus que l'article est défini le cas échéant, c'est-à-dire que production, on lui paye au prix coûtant sur le marché international. Donc ça, n'aura plus à transporter son gaz jusqu'au marché international pour le vendre et on le lui achète au même prix qu'on il gagne même. Donc pas poser problème. Mais comme ce costume amul besoin national du Sénégal rek ce ci le bok. Ce costume ay le ñoko mom 10% de am yo Donc patriotisme faut manquer Sénégal. Donc gaz moo réglé problème au Sénégal en appoint nag euh, usine u euh, euh, seen bi ñëw centrale au charbon mais Côte d'Ivoire kilowatt heure bi ci 50 francs Sénégal mu ngi ci 100 francs 110 première tranche parce que am trois tranches Côte d'Ivoire am na pétrole mais li fi nekk ci gaz xam nga gaz avantage par rapport au pétrole doo ko raffiné doo ko doo ko traité Il da nga rek pour mu pour mu nekk liquide nga mën ko transporter conditionné tu le brûles directement il est propre amul ay huile ay résidus la meilleure qualité de gaz la ñu am du méthane propre léger alors Côte d'Ivoire amul mais nous nous payons deux fois plus cher l'électricité que mais ils ont appliqué la vérité des prix Nous, nous appliquer la vérité des prix parce que état bi mhm. gouvernement bi dafa avantages sur les produits pétroliers parce que le Sénégal dafa ci on était PMA pays moins avancé ñu avons ko ñu classé le ba classé Sénégal PPT loolu mo Sénégal PPT. quand tu es classé pays pauvre très endetté tu as am subvention sur les produits pétroliers sa facture pétrolière dañ la de moitié de 50 ça veut dire que si le baril coûte 50 dollars 100 dollars yow 50 yi ngay supporté légui 50 yi ñu subventionné au lieu mu répercuter wu ci consommateur bi day dem ci caisse nguur à l'époque, la, facture pétrolière n'était que de 89 milliards. Actuellement, on dépasse 375 milliards de factures pétrolières. Donc la moitié, la ñuy jël ñom té ñu bari dañ ci am ci am ay maison de presse dañ ci am des personnes en dehors de l'appareil d'État dañ donc avantage c'est mo leen jaral ñu insister ci importation produits pétroliers pour défaut courant parce que ñom dañ des am ay subsides Té lolu c'est depuis jamonoy Abdou Diouf ba tay ji donc c'est ce fi nekk kon suñu politique énergétique dañ ko accès ko ci parce que toute la raison du gender vers les miailles les champs gaziers forter ça, 300 000 mètres cubes de gaz On investir 2 millions de dollars c'est-à-dire 1 milliard donc Sénélec war a un potentiel L'État du Sénégal war na am potentiel Il forer un puits euh, actionnaire à 100 pour pour alimenter des turbines à gaz convertir toutes les turbines à gaz ma la CIRD Ben ben courriel e ils se sont réunis depuis 2016 et ils ont défini que dans l'espace UEMOA le kilowatt-heure ne doit pas dépasser 30 francs et moi je dis 25 francs mais mais on n'est pas loin ne doit pas dépasser 30 francs donc c'est une réalité donc les liñ pour nous, la donc suñu politique énergétique nous na favorables favorable surtout que loolu dafay am transversalité industrie est compétitive parce que courant euh, facteur de production son entreprise est cher donc c'est un produit fini dafay dafay wàññeeku donc dañuy compétitif loolu ça profite à tout donc yéen a ko déggandoo lii li muy wane mooy maanaam li nga xamante ni ni moo waroon wàññeeku ci facture courant yi. gouvernement bi lay profité cherté courant bi li ciy tegu yooyu yëpp ñoom ñoo koy jëriñoo bu ñu toogee ba heure bu leen neex ñu wàññi tuuti ci courant bi ndax sénégalais yi ne wàññi nañ courant bi alors que lu tuuti la ci li ñu waroon wàññi ci courant bi maanaam courant waroon na gën a moins cher maanaam tey famille buy fay courant par waroon nga di fay dix parce que suñu gaz bi ñu moom commencé nañu exploité bu ñu paree ci loolu la dañuy ñëw ci pétrole bi continuer tamit ci gaz bi ñu nemmeeku ci nag ay njombe yoo xam ni mosul am ci histoire Sénégal moo xam ci contrat yi nga xam ne signé nañ ko ko tuddee di bonus ay bonus en milliards la yoo xamante ni Macky Sall moo koy signé saa yu signé contrat day am ay bonus yoo xam ne ay milliards la yoo xam ne moom moo koy moom mi ngi koy signé ak ay entreprises yu nekk bitim réew yi nga xam ne ñooy exploité pétrole bi am na tamit yeneen délinquants yu ne ci nguur gi ciy bénéficié wu te loolu lépp ñi koy yëg mooy askan wi maanaam askan wi naru ñu jëfandikoo dara dara dara ci pétrole bi nga xamante Sénégal d'abord dafa am a mu Sénégal est un pays pétrolier et gaz yi avons noppi ñu contexte boo xam dafa am ñaari avantage côté pétrole et côté gaz parce que 2019 day am crise une crise, un choc pétrolier a une crise pétrolière pour 2019 tous les experts le savent et s'y préparent parce que baril bi c'était à moins de 40 dollars il y a un ou deux ans les mu ngi grimpé romb 80 100 bientôt T'es du gars a wàccaat Lors mon jaaxal artiste Moi, euh, nos nos nos hommes politiques nous nga xam informé tam euh, des contextes géopolitiques et des réalités internationales parce que nous sommes dans un sous-ensemble de l'ensemble mondial bi nekk àddina monde kon dañu war a nous c'est bientôt 2019 donc choc pétrolier boobu bu seul sans sortiront ñi ci génn ñi produire pétrole nous sommes une first oil premier baril de pétrole qui koy vers cette période là. donc Sénégal a une chance une exception ci pays crise va di frappé parce que c'est un pays producteur. même pétrole bi suñ ko 2021-2022, le gaz on va l'exploiter dans deux mois. ici à dans le bloc de Saint-Louis donc nous nekk un produit gazier donc à l'abri de ce choc. donc l'avantage avantage on va vendre plus cher que suñu que produire donc loolu mo nek suñu kanam c'est-à-dire buñu mënon am sur ci pétrole le gaz mën nañ ci am 100 francs parce que ça va monter C'est dootul dootul muy première chose deuxième chose gaz enjeu mondial parce que Europe Russie a contrôlé son approvisionnement en gaz Le monopole bobu le européens yi bëgg briser motax BP def tout ba dugg ci blogu euh, Saint-Louis bi nga xam ni c'est des réserves de 50 000 milliards de pieds cubes de gaz. et les Anglais donc des Européens. Mhm. ñoo dugg merci de la précision des Européens dugg ci cos ci ci ci capitale bi ba nekk ci majoritaire péripéties yi du mën naa ci damay bañ a guddal. donc léegi loolu pour mu président Macky Sall pour mu tiq le tiers de nos revenus pétroliers et gaziers parce que ñun am nañu ressources minière am nañu or am nañu zircon mais pourquoi ñu cibler pétrole ak gaz kese parce que c'est immédiat c'est un robinet qui, qui kii loolu dafa ni ci benn vidéo bu ma détaillé. Vous avez ci budget ala un problème parce que dafa règle et principe budgétaire dafa am plusieurs notions mais euh, principe d'universalité bi ci lay taxaw tuuti parce que jàll naa ci unicité de caisse parce que budget dafa être a nekk place Il doit être fii lii nekk fii lii nekk fii dafa war place pour contrôle du yomb dafa am annuité chaque année chaque 31 décembre dañu ne kii budget 31 décembre le commencé qui février qui kon kenn du ko mën gérer yooyu ay monde bi dégoûté, déggoo loolu universel non a la Il di doxee dafa am principe de non affectation tam ci principe d'universalité non affectation munoo jël

amuñu besoin de développement wala besoin d'investissement, ou wala amuñu urgence alors que mënuñu fay étudiant balaa muy am nit dee mënuñu fay enseignant yi muy am année bi yàqu gis à l'université de Saint-Louis les années sont sont invalidées mënuñu fay personnel soignant ànd gësam mu ngi wax ba sonn kenn faalewu ko mënoo jënd sa gerte paysan mais xaalis boobu mu xaar projet de loi mais au même moment yaa ngi yàq suñu dépense donc léegi le tiers boobu la bëgg a affecté fonds six présidence le dépendre président mooy nommé ñi fay nekk fonds ci ay statut dafa am pour leble pour financer ay projet pour jënd ay actifs ak même pour jaay suñu ay actifs wala mu hypothéquer ko amna sax droit hypothéquer suñu ay actifs ñun mom moy décider li baax pour Sénégal légui ci vidéo bi nga xam le président Macky Sall le tiers à la kuli al duñ ko duggal ci budget bi li ci tek xam nga mooy lan c'est ça mon problème caisse bobu alal bobu sax la wax c'est mon nekk seen mën nañu di ci leb gouvernement bi mën na di ci leb ci condition yu gën a woyof mais li mu ci teg aussi nee na yeneen nit sax mën nañu di ci leb waaw yeneen nit ñooñu mooy ñan ci loo xam ne da nga ni da nga koy dencal les générations à venir kooku muy premier problème un tiers bi laa la wax moom la ñu bëgg a dugal foofu mais deuxième tiers bi nee nañ day dem ci budget bi ak troisième tiers bi léegi nee nañu deuxième tiers bi dem ci budget bi benn ña deux tiers yi dem ci budget bi benn bi day dem au budget de fonctionnement mooy seen dépense il existe le budget de fonctionnement euh, budget de fonctionnement un tiers nos revenus pétroliers et gaziers pour seen ay salaire sursalaires, ay sursalaire indemnité de logement seen ay per avantages et avantage ak renflouer seen caisse noire certainement pour seen qui pour nguuru pour avantage pour eux le troisième tiers seulement le budget d'investissement c'est-à-dire pour les hôpitaux ay hôpitaux ay écoles C'est un problème quoi donc nous nous consacrer. wallahi et le projet existe COS pétro la le sas pare na da koy mois pour teg loxo ci suñu alal c'est au total deux tiers parce que ben bi bu ko fonds 6. ben bi mu yokkee ko budget de fonctionnement jamono a xam fonds il dafa ubbi gouvernance am ak conseil d'administration administration HCCT Tanor donc dina mën fa mën a dugal ay nitam assemblée nationale Mustafa Moustapha Niass je rappelle en passant Moustapha Niass 2012 est-ce que xam ngeen la Macky Sall jox bloc pétrole parce que mon actionnaire la ci Oryx Petroleum Oryx Petroleum lañu jox le bloc de Domflor en Casamance en 2012 le Macky le décret Oryx mo am 85 de ce bloc parce que faut amul 90 90 moy la règle mais fofu dafa frontière au Guinée-Bissau bi nga xam un dañu problème de euh, année euh, problème frontière maritime nous sommes cours international de justice ñu jox Sénégal Les léegi Abdou Diouf ci bëgg a ni léegi bon day de 5 pour il dit 85 pour euh, pour Oryx Moussa Fagnès. en phase de recherche et 80 en phase de production donc li nit ñi war a xam mooy que ni Sénégal actuellement dañ ko jël en otage par ñetti nit ñetti nit ñoo jël en otage Sénégal instant bii nii muy Macky Sall Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niass ku ci nekk am nga ay privilège ku ci nekk am na looy am ci pétrole beeg gaz bi ci ressources yi nga xam ne Sénégal am na ko looloo tax ñoom tey des ci nguur gi moo leen gënal lu ñu am parce que dañ ci bëgg a jaaree am alal ba faw ba keroog ñuy dee ba àdduna tukki looloo tax ñu décidé ñoom ni dootuñu bokkati ci élection te pare nañ ngir jàmbaarloo képp ku taxaw ci ñoom bëgg seen parti yi dem élection jaral na leen dee ndax li ñu am ci nguuru Macky Sall ay bandi yu mag a mag mag ñoo nekk si bopp réew mi te leen rek moo leen tax a muy seen intérêt tey ku yàgg suivre histoire politique Sénégal xam ne Moustapha Niass ak Ousmane Tanor Dieng ñoo gën a bañante ci lu yàlla sàkk bëggantewuñ te loolu mi ngi tàmbali depuis parti socialiste Moustapha Niass ak Tanor seen problème moo tax Niass ci boppam génn PS dem créé AFP donc ñaar ñi nga xam ne dañu bañante bu ñu demee ba booloo ci benn coalition parce que am na intérêt yoo xam ne nii moo ne ci biir maanaam bañ démb tey bu rek am na lu ko lal te lii yëpp li muy wane ni mooy ne ñoo ñu seen leen patriotisme bëgguñ seen intérêt personnel képp leen ñor ak seen explication ba donc problème bi deux tiers pour nous, un tiers pour Sénégal c'est-à-dire bu à compte quatre milliards de dollars kese kese que nous ñu commencé nekk producteur commercialement parlant loolu le tiers ça t'amène à 1730 milliards pour Francis. 6 pour le budget de fonctionnement ben pour le au nom de quoi budget de fonctionnement déjà mhm. mais y a budget de fonctionnement milliers de milliards parce qu'actuellement, on parle de milliers de milliards sénégalais parce que si nous ba de ñu nous gu nous nous présidence caisse primature jox caisse noire assemblée nationale jox caisse noire HCCT mais ñu daf koy def d'autorité loolu mooy problème mu sénégalais yi ak Macky Sall c'est-à-dire dafa considéré wu opinion publique am ak population moom lu ko neex lay def te li muy def da ko lul teg ci yoon maa ngi lay wax léegi règle et principe budgétaire dëppoowul ak li mu bëgg a def dëppoowul mais nee na da koy def soppi ko loi c'est-à-dire moom bëgg-bëggam da koy traduire ci kay ci loi wayaan na fi école de institut de pétrole et de gaz xam nga ñan la ko wayaan waa Total dafa jox Total deuxième contrat est-ce que xam nga jox total deuxième contrat parce que euh, le refuge offshore profond bi tax euh, euh, Thierno Alassane Sall démissionné mais am ben benn contrat bu été signé avril bi passé bu ñu tuddee UDO ultra deep offshore Bobou, c'est un scandale Le Sénégal dese ci à part bloc yi ñu offshore le Sénégal dese ci géej yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la jox total Et le refuge offshore bi bi indi coow bi Thierno Alassane d'accord avec ak Il yu bëri dañu ni licence si ma 10 000 kilomètres carrés le joxe parce que 10 000 km², carrés au moins 3 licences comme nous 10 10 000 km², 3 contrats. nga avons un am avantage ci contrat contrats dañ 3 fois mais ce la joxe am 10 357 km². Ce moom la joxe 65 000 km² de bu la. région de Dakar vous jógee Cap Manuel ba Diamniadio ëmb yenn ba 550 km donc 65 000 km², carrés lu 120 fois superficie de la région de Dakar mu jox ko benn société xam nga ñaata ñaata ñaata lañ ci joxe bonus de signature 10 millions de dollars maanaam 5 milliards ba ñuy signé contrat bi léegi ci école bi laa jëm 5 milliards yu njëkk yi des signatures du contrat Le contrat bi ñu signé ko signé 12 euh, mai 2017 léegi dañuy joxe beneen 10 milliards de dollars bu Macky Sall signé décret d'approbation bi loolu c'est fait en avril 2000 léegi nee nañu benn benn 10 10 millions de dollars benn 5 milliards bi pour tabax institut pétrole et du gaz la mon petit ci benn discours dafa sàkku ci contractant yi ñu jàppale ko pour mu tabac. institut Bob. léegi loolu le traduire en texte dans le contrat ci benn disposition du contrat loolu mu n'y ñaan non, moom le bind ci contrat bi wallaahi yëpp a ngi fii donc ñun loolu ñàkk gëm sa bopp la ba Bon, jaay sa réew la parce que suñu des loolu c'est de la haute trahison parce que euh, premier bloc du total premier bloc du total mais xeefu xippi mu jaay 30 de cent jaay ko Petronas benn société malaisienne actuellement nous sommes les di topp Clair sur toutes les places boursières tous les marchés financiers mais amuñu trace ou transaction totale Petronas alors que société pétrolière compagnie pétrolière nous dañuy obéir à des standards de publication et de transparence moo tax ci Cosmos ak BP on a tout parce que BP bi mu duggee ci capital bi jënd 27,49% de euh, ci ci Cosmos loolu la njëkk jënd mais nous avons à titre de prise de participation déjà 960 euh, millions de dollars plus 2 dollars de bonus par futur baril produit dans la limite de 1 milliard de barils. Ça veut dire 1 milliard de barils par 2 dollars, ça fait 2, milliards. Plus 960 millions, ça fait presque 3 milliards. Beaucoup traduit en CFA, tu es au-delà de 1500 milliards pour 27% d'actifs. Donc, les total, il y a 30% Petronas dans le contexte où se profile une crise énergétique majeure, un choc pétrolier. Alors que nous, contrat, ay 2 milliards 500 lañ 5 millions de dollars lañ am ci premier bloc est-ce que xam nga suñu législation code pétrolier bi est en vigueur le bonus de signature dañ ko supprimer depuis 1986 kooku c'est ressorti du rapport de l'inspection générale d'État fait le dossier pétrolier. c'est des cadres de ce c'est pas Clédor qui l'a dit c'est Mamadou Faye qui l'a dit c'est madame Sy conseillère juridique qui l'a dit et un autre qui est à la commission d'attribution des licences qui ont unanimement dit que bonus de signature dañ ko supprimer depuis 1986. Ce n'est pas conforme à la loi état nous demander bonus de signature ce que l'enquêteur consigner. consigné Le rapport boo xam ne nee nañu ku ko génnee ñu jàppale parce que dañ ko sàcc bonus boobu Petrosen lay non seulement a ce bonus mais dafa am sax li indemnité superficielle cest à dire le nombre de kilomètres carrés là je vous day fay chaque année 15 dollars par kilomètre carré et par an c'est versé à, à renouvelable redevable en début d'année contractuelle c'est-à-dire si signé comme le mai 2017 le premier signé première indemnité superficielle bi tombé depuis mai 2017 Beaucoup bokkul bonus de signature Avec avantage le contrat dafa bëri contrat, on ne détailler format le talk show les contrats pour la plupart waxuma la renégocier sax mais mën nañ les casser le plus important j'en viens au Saint-Louis à Kayar nga xam ni mooy li Sénégal ëpp ci alal nañ ko joxe mooy rapport boobu ma lay wax dama koy publier dëppawul ak yoon te enquêteur yi nga xam ni président Macky Sall moo leen yebal moo ko ni lii dëppawul ak yoon bu ko signé dëppawul ak intérêt Sénégal dëppawul ak yoon parce que ni ñu attribuer marché jaarul yoon parce que dafa am entreprise bu ñu waxta waxtaanaloon ba jiboo ba conclure mieux offrante ci law oil euh, ñu ñu beddi ko jox ko entreprise boo xam ne juddoogul sur le papier te dafa am sax ay antidatage de document de contrat yoo xam ne ñoom avoué nañ ko ci biir enquête mais c'est énorme donc Diarou y déjà du côté Bobo, mais aussi respecté sur le code pétrolier code pétrolier est l'article ci article 8. nul ne peut être titulaire d'un titre minier d'hydrocarbures s'il ne justifie pas des capacités financières et techniques Il ngay les ñaar yooyu e la wax ngay am capacité financière capacité technique donc dafa am commission le saytu loolu biir Petrosen nous seen analysé ci kaaw les capacités financières analyser le pétrole, La capacité financière et technique te dit te donc sur ces bases mën nañu casser le contrat Je vous di signaler que président Macky Sall a récupéré 5 contrats il y a 2 mois yoo xam ne joxe woon ba et c'est des germes d'un conflit à venir actuellement Sénégal Franck Timis mu ngi sur le ci blogu Saint-Louis offshore bi nga xam ne lañ ko octroyé woon ba noppi entre parenthèses Total il n'a rien fait Petrosen moo jaay 1800 kilomètres carrés

pour jotaat seen àq ak seen yelleef parce que am na ñoo xam dañu introduire seen titre à la bourse de Berlin Hydro-Québec bi yoroon Séné bi jëndoon Sénélec mhm. Abdoulaye bi mu ñëwee dafa kasi contrat bi contrat béton la am mhm. remboursé leen seen daal di récupérer aslor ArcelorMittal dafa ñàkk dañ ko ko dindi avant moom di South sanction pécuniaire rek mo ci fekk euh, Sénégal mm-hmm. repreneur mo koy fay donc exemple pour wane ni bu kenn désespéré on peut reprendre nos nos nos choses en main suñu alal mën na donc ki nga xamni mo na remplacer Macky Sall ci bop réew amna liguey bu rëy parce que li Macky Sall def mënuñu ko tuddee lenn lu haute trahison manam war sa askan. inshallah buñ ko fi jëlé ci bop réew mi ki nga xamni moko fi wut dañu wara japp Macky Sall tecc ko ci kaso bi mom ak ñeneen ñi mu andal di xaxat xaxaté xaalis réew mi ngir ñu delloo sénégalais yi li nga xamante nii mooy seen xaalis leneen li moy contrat yi nga xamni Macky Sall signé na ak ay ñoñam

Sénégal fépp gaz la Sénégal fépp or la dëkk boo laal am na gaz am na pétrole te ressources yooyu noonu richesse boobu Sénégal am Sénégalais bu ci nekk war na ci mën a gis sa bopp même nit ki nga xam ne ni day toog liggéeyul comme li xewoon ci jamonoy Xadafi biir réew mi xam ne ñi nga xam ne daaw liggéey sax dañ daan am salaire war na am fii nii ci Sénégal tey képp koo xam ne liggéeyoo sax alal gi Sénégal am ci wàllu pétrole ak gaz chaque weer mën nañ la sax wutal salaire di la parce que alal gi dafa bëri tellement que ko jeexal mën nañ ci jaaree développer ba faw tekki ba faw ku ci ni yëg ci biir waaye nag malheureusement ñuy jiite ay bandi lañ ay délinquant lañ ay woyu lañ yoo xamante ne nii au lieu ñu profiter ci chance bi yàlla may ñu ñu soppi dundinu sénégalais yi jëlee leen ci ndóol yóbbu leen ci li nga xamante ne nii mooy am-am dañ ciy profité wu ngir am alal ak seen njaboot solution bi lenn kese la mooy jëlee fi Macky Sall na ko ràpp ci kaso bi tëj ko mu fay xaalisu Sénégal yi nga xam ne ni sàcc na ko ñu xoolaat contrat yi nga xamante ni signé na ko vidéo bi tey loolu yaakaar naa ni ku ci nekk am nga lu leer ci pétrole ak gaz bi nga xamante ni ñu ngi koy coow depuis ay weer kese la demee dañuy gërëm aussi Clédor Sène ci leeral yi parce que moom aussi ci patriote yi la bokk parce que li muy def ñeneen a ko waroon def journaliste yi ñoo ko waroon def télé yee ko waroon def rajo yee ko waroon def presse écrite bi ñoo ko waroon def duñu fàtte aussi Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall moom aussi ku mat a delloo njukkal la parce que contrat bi ko Macky Sall signé signaloo avec Total ak Rufisque offshore moom la ko signé signaloo mais dafa lànk lan moo tax parce que dafa dëgg réew donc ku mat a delloo njukkal la ku mat a gërëm la parce que homme politique yu mel ni Thierno Alassane Sall manqué nañ ci dëkk bi